mafatihal bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna yaa di samay tànk yaa di gët ya gisal naa la defal dund jox la ren ba déwén waaye jomam tax na bëgguloon di gangal bam fa demee fekk àccu daldi lëndëm fit wu dëgër pas-pasam ba rekk la jiital sax ci ndigal jàppe diine làmp ba muy niite lëndëm kukk yaa fi woonta setal yàlla tibbal pay gu yaatu jox ko sëriñ bamba mu fab pay ga jox ko daldi ko fal maa ngi soññ bépp taalibeem mu takku jàpp dëkkam beek njaboot gi ak di teral xam ne sëriñ xam ne sëriñ cerno bamba lam ko defal barke ba woon des na fii ba léegi demul farlu ku def barke booba walsi fi yow cam su yolam barke mooy ko waa ji jógal accu li sëñ cerno daaru am te bëggoon buñ ko tongu nañu fa samp kër te dundal yal na boroom yokk leer te dolli ngërëm sayxu cerno aar njaboot gi yokk ndimbal daldi guddal seeni fanta yokk yokka wéral képp ku dib taalibeem mu may ko alal barke sëriñ bamba mbër ma yàlla defal ngën ji yoneen fekku gën ko jikko amul wasalaamu aleykum waaw mbakke euh, wax naa leen léegi ne noo ngi tuuba accu tuuba accu mi ngi ci weti ngin ngi new rek département bu gee ngi new la bokk waaye nag xam ngeen ne itam mairie bi mu bokk mooy mairie Gagnick monsieur Malick Ndiaye jiite ko mi ngi nii xam ngeen ni itam dëkk la boo xam ne Serigne Thierno Bousso moo ko sañcoon ci 1944 juróom-ñaar fukki at ak juróom la am ci ren 44 ak 2019 75 ans la Serigne noo ko sañcoon yàlla dogal nag sëriñ Serigne lu Mbacke xam ngeen li mu bokk ak Serigne Thierno jarul ma ca jaaraat seen waajur yi ñoo bokk Serigne Bousso bi soxna Awa Bousso waajuru Serigne Fallou soxna Aminta Bousso ndey Serigne Abdou Khadir. soxna yaasin ndeyu maam xaas soxna daaro ndeyu seen cerno ñoo bokk sëriñ busoo bi sëriñ busoo bi ak maam jaara ñoo bokk ndey ak bàyyi kon loolu leer na dañ ma ne bu ma yaasalati kon léegi naay tënk rekk di dem loolu leer na sëriñ cerno moomu nag bi sëriñ fàllu mbàkke nelawee ci juróom-ñaari fan ci mois de août 1968 boobaak léegi juróom fukki at ak benn la ci la tàmbali di defal màggal gi sëriñ lu Mbacké magam ja doomi ndeyam ja di léppam di ko def fii ci Touba Accu bi mu génnee jamono it taawam bu baax bii wéyal ko di ko def muy sëriñ buso Bousso sëriñ lu Mbacké la ko tuddee muy def loolu looloo waral tey jii ñu bokk fi daje le 2 mars 2019 di màggal bis boobu nga xam ne ci lañ ci la sëriñ Thierno Bousso jëlal woon sëriñ lu Mbacké di ko ko màggalal ci loolu la nekk ci biir loolu nag Cheikh Abdoul Baaxe Mbàkke mi ngi nii toog mooy kilifa kër gi sëñ Fallou mi ngi nii toog tubaar fakkal la délégation bi nga xam ne mooy ñëw jóge ci monsieur le président de république mi ngi nii toog ki nga xam ne mooy moo Modou Mbacke Diaw moom Serigne Cheikh Diaw Maalum moom sëñ Touba di kenn ki la Mamadou Mountakha mi ngi nii toog danaa lim kilifa yi fi nekk yépp bu neexee yàlla bala ñoo jàll ci waxtaan wi. waaye nag ma jàng délégation bii nga xam ne moo jóge ci président de la république monsieur Macky Sall délégation boobu ki ko jiitee mooy mooy adjoint préfet Alioune Badara jàlloo ki topp ci moom mooy sous préfet bu Ngélo Aliou Sadji commandant de brigade Déthié Dione commissaire BMS Mamadou Ouri Diallo ba tey Youssoufa Youssoufa Pouy chef service développement local Khadim Ndiaye chef service développement mi nga xam ne maanaam moo yor mbirum élevage waaw sëriñ euh, sëñ Modou Thioune di conseiller en communication bu département bu ngin ngi new sëñ Modou Thioune sama jarbaat mi ngi nii toog kooku sama jarbaat la maag yaay ma bokk lépp tabaar fakal la mu féete ci wàll woowu di kenn ci man xam ngeen ne itam monsieur malik Ndiaye maire Gagnick mi ngi nii toog Papa Ndiaye premier adjoint au maire mi ngi nii toog ba tey Habib Ndiaye conseiller mi ngi toog Alaaji Malick Ndong moom itam chargé de mission mi ngi toog Wagan Faye conseiller municipal mi ngi toog Ibou Guèye conseiller municipal mi ngi nii toog ji Malal Ba conseiller municipal mi ngi nii toog Thiendella moom it mi ngi nii toog délégation yooyu mu nga lim léegi tubaar fa kàll xam ne adjoint préfet moo ko jiite moo fi teewal préfet bu Guèye waaye moo fi teewal itam gouverneur Alassane Sall teewal fi ministre de l'intérieur teewal fi premier ministre teewal fi président de la république ñii toog ñoo fi teewal nguur gi yëpp ak gouvernement bu Sénégal yëpp loolu nag yàgg nañ koo def ndax lépp loo xam ne am na fii ci département bi bari na ci loo xam ne danaa ko fekke ndax ci département bi laa bokk sama sang bu tedd baa ngi nii toog lu xew dañuy ñëw loolu loolu loolu moo wane ne li leen wan ci administration bi lépp yéen a ngi koy def seen jataay fii mooy jataayu monsieur Macky Sall mooy jotaayu première ministre mooy jotaayu ministre intérieur mooy jotaayu gouverneur mooy jotaayu membre gouvernement bi yépp jërë ngeen jëf ba tey itam am na délégation boo xam ne mi ngi bàyyi ko ci mouvement bu ñuy wax nawlonte nawlonte mouvement nawlonte nit ki boo ko nawloowut bu wootee doo wuy ji boo waxee doo ko tontu koo nawloowut doo wuyu waxam doo tontu yi waxam doo wuy ji bu woteem mouvement bii nag ki ko def mooy xale boo xam ne boroom boroom màggal gi ki ki yor ki jiite màggal gi daan ko woote lañ ko tuddee muy Serigne Thierno Bousso xale bii ko jiite mooy Thierno Ngom ñu tudde ko Serigne Thierno mu nekk Dakar yor mouvement boobu tudde ko nawlonte loolu am na solo trop Thierno Ngom ñu ngi lay gërëm di la sant mi nga ànd ak sëriñ Youssou Touré mi nga ànd ak Mbacke Fall ak délégation bi bàyyi ko Touba mi ngi ànd ak soxna Ndey Guèye ak délégation bi bàyyi ko Dakar mi ngi ànd it ak délégation bi nga xam ne mi ngi bàyyi ko ngin ngi new mooy muumaa nawlonte boobu nga xam ne sëriñ Thierno Ngom di turandoow sëriñ bi nekk Dakar tabaar fakkàlla di jàmbaar ci kër gi lool ndax daaw sëñ baa ngi ma koy wax jàmbaar la ci kër gi waaye noonu la de bu loolu jàllee liste orateur yi ma jox mi ngi nii kii jëkk a wax mooy monsieur ma Bakhoum Mamadou Bakhoum dutuñu ko présenté kenn taalibe la ci kër gi amub yar ami teggin bëgg lu baax dégg ndigal di ko jëfe du tooñ kenn te ku ko tooñ mu baax la ki topp ci moom di ma Serigne Massamba Thiam Serigne Massamba Thiam moom moo yor fédération bi kooku moom macha allah Ah, moom ñeeño bala mañ si sëñ Masamba Thiam ki topp ci moom di sëriñ Assane buso kooku may wax ki turu famille bi sëñ Assane Bousso moomu nag su ma juumul sëriñ Assane Bousso mi àndul ak Cheikh Abdoul Khadir Mbacke dem aji Màkka te des ca at mooma ci la sëriñ Assane Bousso mii juddu sëriñ Thiel tudde ko sëriñ Assane Bousso moomee su fekkee juumuma defe naa noonu la de bu ma juumal ba nga ni weddi nañ ma kooku mooy ñetteeli orateur bi ñenteel ba mooy sëñ Fallou Bousso sëñ Fallou Bousso Guédé représentant des chefs religieux sëñ Fallou Bousso nag moom mooy wax ci turu chefs yi ki ñu topp nag mooy monsieur le maire Malick Ndiaye maire u Gagnick nga xam ne moo cay topp mooy ana mu ana ana baaxum mu du baaxum ah waaw topp mooy le préfet su préfet waxee ba noppi sëñ Fallou guso bu sëñ Fallou Bousso waxee ba noppi nag Cheikh Abdoul Baaxe Mbàkke wax ñaan am déet noonu la waaw kay jéggal leen ma de damay tàmbalee naax kon kàddu gi ñu ngi koy jox Mamadou Baaxum Mamadou Baaxum ñu jox la kàddu bokki jullit yi asalaamualeykum euh, man Mamadou Bakhoum taalibe bu xeebu bi ma bëgg a jël kàddu xam naa du gudd kàddu jottali ay nuyoo yu sëriñ bi ay cant sëriñ bi ak it témoignage bu mu bëgg a def rek xam naa du gudd du yàgg bu ko defee ñu ngi jokk ci nuyoo sëriñ bi di nuyu mbooloo mi képp ku fi teew ci turam ak santam sëriñ bi nee na mu ngi nuyu magam ju baax ji egsi léegi di ab Abdou Baaxe di kilifaam di nuyu bokki boppam bi joge Touba di ay wajuram di ay kilifaam di nuyu monsieur le préfet monsieur Diallo ak délégation bi mu àndal xëy na duñu lim waaye dañu ne ànd na ak sous-préfet bu Ngélu nga xam ne moom mooy kilifa gox bi ñu àndit ak maire bi nga xam ne tey yàlla moom la def mu jiite commune bi lii de xewe ci biir commune am moom moomu tamit mu ànd ak ay adjoint ak ay conseillers sëriñ bi nee na bu nuyoo noonu bu noppi nee na mu ngi nuyu daayira yi nga xam ne tey ñoo tënk ci fédération bii nga xam ne sëriñ Massamba moo ko jiite xëy na bu sëriñ sàmba jëlee kàddu dana gën a xóotal dana gën a wax taxawaayu daayira yi ci biir liggéey bi sëriñ bi nee na mu ngi nuyu soxna yi nga xam ne ñoo nekk ca wàññu di liggéey li nga xam ne moom la ñuy bendalee gan yi sëriñ bi nee na mu ngi nuyu bokki taalibe yi nga xam ne ñoo jóg guddi ak bëccëg sol seeni dàll ba tey lii mën a taxaw kon suñu waxee loolu sëriñ bi nuyu na képp koo xam ne ja sol na dàllam dox ba yegg si fii ci jataay bi bu loolu passé mën na ñooñu mu nuyu ñëpp nag dafa leen di beral kenn ku ne cant cant li nag daf koy jëkk a jagleel yàlla sunu borom ndax nee na samedi bés ni ki tey Sénégal bépp amul lu nekkoon seen xel kenn ku ne xëy na sa fit a ngi fët fëti ci ñi gàtt xel comme man seen àll wa guddul waaye ñi yàlla dénkoon moom seen xel daloon la kon sëriñ bi nee na mu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ci ñu romb nañu bés boobu ba tey ñu mën a toog fii bu sante yàlla bu baax nee na mu ngi santit administration locale bi nga xam ne jàpp nañ ci loolu la bu yàlla dimbali nañu mu aw ci yoon bu li xam am am nee na mu ngi santit bokki taalibe yi nga xam ne kenn ku ne dox na sukk ci wetam ñaan ko ne ko yëf yi dama cee bokk dama cee bëgg a bokk te ni laa ci bëgg a doxee nee na mu leen di sant ndax ku fi ñëw dala ne demal nga lay wuutal waaye na nga xam ne yàlla lay joxe kon nee na mu ngi sant taalibe yi ci bind boobu ak doxin woowu nga xam ne doxe nañu ko sëñ bi nee na mu ngi sant ay bokkam Tuubaa sori na fépp sori na te bokk yaa ngi fi su wootee ngeen fekk si ko su àddoo ngeen fekk si ko lépp loo xam ne yitteem la taxaw ngeen ci sëriñ bi nee na bokki boppam yi nga xam ne ñoom la bokkal gox bi di ay sëriñ ni moom di ay doomi soxna ni moom nee na mu ngi leen sant bu baax leen gërëm su ma limee dinaa juum waaye mën naa ni seen porte parole si sëriñ Ibrahima Sall mu ngi fi kon na ngeen jàpp ne bu ñu tuddee sëriñ Ibrahima tudd nañ tund gëjëg yëpp su ñu tuddee sëriñ Makhtar Sarr tudd nañ tund gàngeneew yëpp kon sëriñ bi nee na mu ngi sant ñoom ñëpp sëriñ bi nee na. mu ngi sant képp koo xam ne dugal na loxoom ci bés bii bu yàlla def lii nga xam ne def na tudd na ci Serigne Thierno Ngom mii nga xam ne tudd nañ ko tudd na ci d'abord ngeen baal ma monsieur le maire ndax kat biñ demee ci monsieur le maire waxtaan ak moom wan ko ne ko bés bi ñëw na mu ne ma bu leen ma jox lettre bés bi sama bés la danaa fa ñëw ni ma war a ñëwee la ma ca war a dinaa ko def ngi dem ci sous préfet keroog yàlla def mu jànq parce que jamono jooju comme ni ma wax léegi jamono jooju ci li ñu nekkoon xatoon nañu lool waaye terewul disposition yi waroon yëpp jël na ko woo préfet ne ko am na ay gan yu ñëw bu ñëwee nga recevoir ma leen ñu dem fekk fu mu adjoint préfet bi waxtaan ak moom mu dalal suñu xel bu baax wan nañu lépp loo xam ne doon nañ ko def ci bés bi incha allah daañu def lu ko raw kon seen teewaay bii tey firnde na ko kon sëriñ bi loolu la waxoon ne nañ leen gërëmal gërëm nag ne ne su boppam ne moom nga ñëwal képp ku fi dugal dërëm nee na ñaan na dërëm boobu fa mu jóge yal na ko yàlla ful bu déenee bu fekkoon benn nga mën yàlla nga mën ñaar quoi témoignage bi ma ciy dolli bala may gudd ngeen ma parce que dama doon kenn ku am cinq minutes quoi témoignage bi ma ciy wax rek mooy bokki taalibe yi laa bëgg a waxal tuuti rek ci suñu sëriñ sañ nañoo yëkkati suñu loxo ne ñoo fi gën sëriñ ñeme leen ko sañ nañoo wax ci loxo ñoo fi gën sëriñ li tax mu wax ko ay naataango ma fi ay naawle ma ngi fi kenn xeebe ko ci ñëpp ko teg ci ko loolu daa am lu ko daan woyof teem la ak i tamit fi ko yàlla boole kon nañ jàpp ne am nañu wayjur am nañu kilifa nañ ko jàpp di ko defal am na fu ñu féete il faut ñu koy defal il faut que ñu taxaw ko kon loolu bokk taalibe ñaan naa leen loolu xam naa ne nu ngi ci waaye nag dañu gën a góorlu laxasaayu topp ci gannaawam topp joxoñam du ñu joxoñ mukk fenn foo xam ne dañu fa jaar di fa am lu ak gàllankoor fépp fu ñu joxoon bu ñu fa jaar incha allah alhamdulilah rek lañuy ñuy dégg quoi. ma demee ni beneen témoignage seen bokk sëriñ bi na ngeen xam ne fii mu nekk ci tund acc wii ci département Guinguinéo bii ci commune Guédiawaye bii région Kaolack bii daa wax Sénégal ndax bu ngeen xoolee région yëpp ngi fi tey Ndakaaru Ndar Thiès Diourbel Louga Tamba Ziguinchor ñëpp ngi fi fédération daayira bi fukki daayira la ak juróom benn ci région yooyu leen jógee ñu ngi fi kon tey mun naa jàpp ne Sénégal a ngi fi kon yéen bokk sëriñ bi seen xel na dal mu ngi def li ñu ko sant la way juróom toppoon mu nga ca tànkoo dal la way juróom toppoon sol na ko mu ngi digital taalibe yi jiite leen te lu baax la leen jiite mu ngi jàngal xale yi di gindi suñu doom suñu xale yi ci alxuraanul karim mag ñi ngi leen di gàgganti dëkk bii mu fa leen taxawu kon alhamdulilahi rabbil alamin sa xel na dal xam leen ne mu ngi ci ay loxo yu baax incha allah amul dara loo xam ne def na ko lu ñu administration avec témoignage avec administration monsieur le préfet fii de yaakaar naa ne gisaguma wala ba nga fi ñëwee léegi déggagoo musiba wala ab lay boo xam ne jóge na fi ñëw fekk si la loolu nag sëriñ bi taxaw na ci bu baax a baax a baax ay taalibeem déggal nañu ko lu mu dégg loo xam ne jaral na ko solow dàllam moom mii mooy solow dàllam dox ba lijjanti ko ba mu nem man la war mel loolu moo tax donc wàllu yenn administration na ngeen jàpp ne seen xol sedd foofu fi mu jàpp ci wetu taalibe yi mu ngi koy doxal bu baax ngeen jàppalante ñaanal ko bu baax yàlla bàyyi ko suñu kanam bu baax ñu yàgg fii ñu ànd ak moom ngi suñu gox bi jëm ci kanam quoi li ci des nag maa ngi jégalu ah lii la suñu xol sedd na ñun bokki taalibe yi suñu xol sedd na guy lii rek lañu ñu mën quoi mu am xew woote ñu fekk si ko mu soxla ñu daw ci ndax kat guddeeg bëccëg mu ngi ci tàll ku xewle ngénte ceet dëj sëñ bi du noppalu ko guddeeg bëccëg te dongo yi dañu mel ni man benn njëriñ amuñ ko daan na ma ka kenn du ñëw mu yëkkati karban sax di ko jox mooy yëkkati yëpp di ko def di yëkkati léppam di ko def kon kii nañ ko gën a jàpp ñaanal ko lillaahi wa rasul barke borom Touba barke sëriñ Thierno Bousso ci barke boppam sëñ Abdou ñaanal sa rakk mu yàgg fii sa kanam bu baax a baax a baax taxawaay bi rafet na yàlla na ko yàlla dolli kon bokk jullit yi maa ngi jégalu loolu rek laa ci amoon lu may wax yàlla yàlla fekk loo déwén ak jàmm barakati rasulillahi sallallahu taala wa sallam jërë ngeen jëf rabbika rabbi auzu bika min hamazati shayatini wa auzu bika rabbi an yahduruni mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu muy nuyoo bi gëna a tedd ñu yëkkati ko teg ko ci kilifay kilifa jataay bi di sëñ Abdul Baaxe Mbàkke naka noonu mu tegal nu ko ci loxo kilifay diine yi fi ne kilifay aada yi fi ne ak kilifay nguur yi fi ne kenn ku ci nekk ci daraja ji yell ci moom kenn ku ci nekk ci tolluwaayam kon ñoo ngi euh, dollee santaat yàlla sunu boroom mi nu may ñu teewaat bis bii te lépp ci yërmandeem dong la ñoo ngi julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa ñoo ngi sant sëñ Touba ñoo ngi ñaanal wérgu yaram ak dolliku ci kàttan lépp loo xam ni mébét na ko ci yoon wi sunu boroom defal ko ci lu raw njortam kii nga xam ni moom mooy sunu bunt ci sëñ Touba. di sëñ Alaaji Buso yal na yàlla yàggal ko fi te mu wér lool dañu ni nag dañuy tënk kon xam naa ni naka noona damay tàmbali ci sant waa tund wépp ndax kenn ku ci nekk ci ñoom xam nañ ci dara bi gan ñi ñëwee danoo génn seeni kër wàcc seeni lal jox ko gan ñi ba tax na ñoom laay jëkke ci cant gi nga xam ni fédération ñoo ko teg ci sama loxo ngir ma jotal leen ko gannaaw loolu yi tamit ñoo ngi sant daayira yi daayira yépp ñoo lëkkaloo nekk fédération bi nga xam ni ci biiram lañu sose comité d'organisation bi nga xam ni moom la sëñ bu sa mii jiite te boobu ba léegi mu ciy def lu mu mën ak lu mu mënul ànd ko ak ñi nga xam ni ñoo nekk ci tund wi ak daayira yi comité d'organisation boobu commision boobu ñoo ngi koy sant bu baax a baax ak di ko gërëm bu baaxe baax gannaaw loolu xam ngeen ni sëñ bi joxewoon na fi ndigal ci université bii nga xam ni sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla yokk eh, ak kàttanam yàggal ko fi lool joxe woon na ko ci eh, université bi ba ñu ko dajalee ba sëñ bi yóbbu ko noon na baax na waaye bëgg na doon na sàkku bu eh, màggalu accu weesoo ah ñu jógaat feddali laxasaay yi ngir am leneen lu ñu yóbbu kon nanu ci bàyyi xel bu bis bi weesoo ku ñu ci woo rek nga xam ni ndigal la gu jóge ci sëñ bi te bu ñu sañoon euh, mu am solo lool gannaaw loolu it am na fi daara joo xam ni mu ngi fii booba ba léegi ñu ngi koy wax sëñ bi sax moom dootu ci waxati ndax booba ba léegi daara la loo yoo goo xam ni am na lu mat téeméeri euh, xale yoo xam ni ña nga fay sàkku xam-xam am fa lu mat ñeenti maître coranique yoo xam ni ñoo leen di jàngal te lay doxal daara jooju jëpp ci poosu sëñ bi lay jóge boobu ba léegi mu ngi ci te jëmm la joo xam ni du ñu uh waaye nag teewul képp koo xam ni a am na loo yëkkati bëgg ko caa jëme te yàlla tax daara jaa ngi fi liggéeyukaay la boo xam ne wax dëgg yàlla lu ci waay di sàkku mën nga ko caa amee Euh, danu ni nag euh, am na ci jëmm joo xam ni bi ko sëriñ bi doxalee digganteem ak ñun boobu ba léegi moom mi ngi def ci daara ji loo xam ni lu mu mën la ak loo xam ni lu mu mënul la ndax ku ne xam na jamono ji ni mu bindoo waaye saa su ne engagement ya nga xam ni moom la jëloon ci daara ji wax dëgg yàlla amu ci benn weer wala benn saa soo xam ne rekk dang na kooku di kii ñuy wax sëñ Thierno Ngom jubluwunu ci wax ji nag lenn lu dul euh, nit ki bu fekkee ni dafa danga am yitte mu taxaw ca lool jàmbaare la ca jàmbaare ca lool tudd turam wàññiwul dara ndax dana ko dolli jàjjiku ndax xam naa ni moom lool la ci jublu ndax booba ba léegi mu ngi koy def neewul uh te jubluwu ci kenn ku ko wax waaye nag dañu koy wax ngir moom ci boppam ñu jàjj ko ci moom ak keneen koo xam ni taxaw nga ci bëgg jëf lu baax rawatina ci foo xam ni ay gone dañu fay jàngi nga xam ni am na koo xam ni ma nga ca suba ak ngoon ba loolu doy la sëkk royukaay yi gannaaw loola moom ci boppam am na taxawaay beneen bu mu taxaw boo xam ne xam nañu ko te moom du moom moonu ko wax taxaw tem ci ñii nga xam ni ay xale lañu walla ay mag yoo xam ni dañoo war a am ci lu nu yëngu ma nga cay taxaw temm kon kii nga xam ni wax dëgg yàlla nag mooy sëñ Thierno Ngom bu ñu demee ba nga xam ni kii nga xam ni ñun moom rek lañu am muy Alaaji Buso joxe ndigal ci daara ji mu taxaw ca temm di ca def lu mu mën ak lu mu mënul ndax man mii di wax a yéen xam naa ci dara a ah, bu ñu toogee ci mbooloo mii ñun mel na ne loola mu doon def nun la koy defal teewul nag boppam dong la koy defal waaye nag la ma ca jublu mooy bu ma nee sëñ Thierno Ngom yàlla na yàlla yokk taxawaayam ñépp ni amin kon loola laa ci jublu ba incha allahu sunu borom defal ko moom it lu raw njortam ci lii nga xam ni moom mooy euh, liggéey bi nga xam ni euh, moom lay yëngu gannaaw loolu yi tamit noo ngi leen di yëgal ni sëriñ bi joxe na ndigal fédération bi dem fële ca càlleen ngir waxtaane màggalu càlleen càlleen nag amoon na bis naka jekk waaye màggal gi dafay ñëw dolli si ci ku ci ndax itamit sëñ Cerno bu sa xam ngeen ni jaar na càlleen ci bi muy yokk lëf as ci xam-xamam nekkoon fa ak taawu sëñ Mor Galaay Jaw sëñ Cerno sëñ euh, sëñ Fàllu Buso xamaloon nañu yi tamit ni gàmmuk càlleen ak gàmmuk nayoobe bokk nañu ci ñaari gàmm yi nga xam ne ñoo gën a rëy ñoo gën a yàgg ci tunduk njaambur ndax gàmmu la lanu yoo xam ni am nañu lu ëpp juróom fukki at fi mu nii kon sëñ bi ci boppam loola sëñ Cerno sosoon foofa ca càlleen euh, fas na yéene euh, wéyal ko Euh, ba mu gën a amaat solo ne nii nga xamee ni noonu la taxawee ci lii sëñ Thierno sosoon fii te wax dëgg yàlla ku fi ñëw tey xam ni mbir mi tubaarkàlla euh, yokk na. gannaaw loolu yi tamit li nga xam ni moom la sëñ bi doon bëgg boobu ba léegi mooy daayira yi fi jëkk sosu sillatu rahimi bi xidmati cheikhul xadim la ñu tudde woon loola nag tekkiwul lenn lu dul euh, ay nit yuy taxaw. di wara e, e, jokk mbokk ci biir liggéeyal sëñ Touba gannaaw loolu bi fédération yi bi taxawee la mënu tudde mooy jamiatu saadatu muridina fi xidmati cheikhul xadim muy e, maanaam mbooloo mu ànd di liggéey ngir sàkku ngërëmal sëñ Touba ba tax na li ma leen ko waxe woon sànq yéen daayira yi liy yitteel sëñ bi mooy ñun ñëpp ñu nosu ci benn buum Euh, di xàccandoo di dóorandoo comme ni ñu koy defee boobaak léegi loola rek la jublu ci li nga xam ni mooy euh, daayira yii mu sos ak fédération bi mu sos mu mu ci toftal kon loolu moo doon li nga xam ni ci tënk mu loolu lañu ni woon bu ñu ñëwee ci euh, ndigalal sëñ bi ñu jotal leen ko lu ci lu mu ci doon nag ci pàcc yooyu ñu lim bu ñu demee ba woo leen ngeen xam ni dafa dëppoo ak ndigalal sëñ bi